Gaza لا

ñu ngi leen di nuyu par kenn ku ne ci turam ak santam di ñaan bis bi ñu yendu tey jii yàlla suñu borom dimbali ñu ak yonent bi ak sëñ Touba ak sëñ Modou Moustapha ñu ñu teewe ko bari ci barke yonent yàlla Muhammad bàjjan sa taalibe yi di waa Kalsaan ñoo lay waaleykum mbooloo mi ñu leen di nuyu par kenn ku ci nekk ci turam ak santam di ñaan ci yàlla mi dëral teewul kii ñu fi dajale di bàjjen maam Fatou Mbacké yàlla bàyyi ko suñu kanam mu yàgg fi te wér yàgg ko fee fekk ci barke borom Touba mbake sa daayira bii di waa Kalsaan ñoo boolewaat yenn fi sa kanam ñu ñaan yàlla bàyyi la fi nga yàgg fi lool li ñu def ak yow nag ñoo ngi ñaan nga ñaanal leen ñu yàgg koo man ki ko jiite du sama yaay jóbeloo ma ngi nii toog ànd ak mbooloo mi yëpp di la sant di la gërëm bis bii nag day bis boo dañu ko def ngir yàlla ak yonent bi ak sëñ Modou Moustapha Mbacké di bis boobu ku gis leen dootoo nëbbu mukk ki ñu defal loolu ginnaaw yàlla ak yonent bi Mbacké yow rek la du kenn boo demee àllub kaañ bu gaynde yuuxoo doo xaar góor la wala jigéen da xam ne li yuuxu gaynde rek la nga jël loolu nag teg ko fi sa kanam bàyyi di ñu dimbali ci saayir ak baatin ñoom nee nañ mënuñu laa xanaa di la ñaanal rek nga yàgg fi te wér yàlla bàyyi fi kii toog ci suñu kanam di bàyyi Omar ndax ginnaaw yàlla ak yonent bi li yëngu la ko yëngu la ko ëpp doole te ñoom li yëngu lépp moom moo ko yëngu ginnaaw yàlla ak yonent bi ñoom moom mii moo moo leen boole ak yow bi ñu leen boole ak yow nag ñu liggéeyal Sëñ Tuuba kon ñoom ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla yàlla na fi yàgg te wér at mu jot bu ñu jàkkaarloo ak yow dajale li ñu yor jox la ko ñaanal leen ngir yàlla ak yonent bi ak Sëñ Tuubaa bu ñu la wanee ginnaaw lu ñu defoon ak yow day yokku day yokku ñu di la sant di la gërëm di la ñaanal yàlla ñu ngi gën a dolli ko waat di boole seen bopp di ko def nañ ko daan defee di la ko jofaat loolu sant ñu def. leen tere ñu bàyyi foo leen bàyyi it boo ñëwee fekk leen fa ñu lool ñu koy sàkku suñu yéen seen diggante ak yow te fas ñu si yéene dellu ginnaaw mukk mukk ñu dajale daayira bi nag teg ko ci loxol sama yaay joddaloo mi nga xamante ni bii moo leen jiital ñoom ñëpp kàddu gi di génn ñu àndandoo ñëw fi sa kanam ñu ñu ma na nga ñu santal soxna si tegal ñu ko ci loxoom te wax ko nañu ñaanal ci yàlla ak yonent bi ak ko ëpp ana yaa jobbe la yaa jobbe yónni nee nag mi ngi fas yéene doon ab taalibe rek doon ab taalibe rek topp ci sa gannaaw ba ba ba ñu fekk sa waajur bu baax wa comme ni ma ko waxee léegi rek. la yokkute rek ànd la sant la nee ñu ngi toog nee ca suba la ñëwoon nee fas yéene nekk ci ginnaaw soxna si nee ak ci gannaawam guddi ak bëccëg nee lu mu nekk ñu nekk ca lu mu leen digal ñu def ko ne lu mu leen tere rek di leen ca fekk ne seen addiya ma ngi nii ak Baay Omar ne loolu la doon jottali bàcc daayiraam yëpp ñoo indi seen barkeelu di ko jébbal soxna maam Faati Mbàkke mii moom Cheikh Moustapha moom Xaadim Rasoul di ñaan nag ñu ko fee fekk lool waaye yàgg indi seen barkeelu yàgg taas ci barke magal gi ndax Cheikh Moustapha ñemewul bor dafa am pay kon nag ku liggéey Cheikh Moustapha jox ko soxna maam Fatima Marème Lo wàcc nga na Cheikh Moustapha fay waaye soxna maam Fatima yàlla fi yàgg daayira fi yàgg te barkeel ci barke Cheikh Moustapha eh, Samba léegi nag daayira bi Baye Omar mooy wax ni nee na daayira bi Sallou si nee na ren wax gi sax du bari nee na ndox dafa tàng te yéen ñi ñëwit tàngoor bi métti na te coono bi métti na nee na bëgg na ngeen teel dallu nee na li muy wax daal soxna maam Faati mooy sant yàlla nee na sant Sëriñ Tuuba nee na sant mu Cheikh Moustapha waajuram nee na liggéey muy liggéey nee na bu sañoon da yàgg lool nee na gàllankoor yi ma ba fekkewu ko daaw yàlla mayaat ko mu fekkewaat ko ànd ak jàmm nee na mi sant bu baax sëriñ Touba sant nag Cheikh Moustapha waajuram nee sant mbokkam yëpp nee na yéen waa daal waa mu leen wax lu gàtt la nee ndax yéen ñii soxna si leen yàgg na ak yéen nee na ànd naag alaaji mii alaaji Omar fan wereet nee cat mu njëkk ma ba bisub tey nee na dina mu leen mukk ñette biir kër ga mu soxna Diop Bello soxna Khady Fall soxna Fatou Mbacké Diop soxna Saba Gisé nee na ñëpp ay taalibe lañu soxna si nee na mu ngi leen di sant nee na leneen lu ngeen defoon itam nee da ngeen sonn rek waaye kon sëñ Tuubaa moom def nëppi na nee na ngeen koo jébal seen njaboot jébal ko seen bopp xale yi nga xam ne moo leen jur nee na moo leen gën a sax seen yaay ku ci tukki boo ñëwee. bala nga wax ak sa papa da ngay am jox ko enveloppe wax moom su ngeen xëyee bala ñoo ndekki dañuy taxaw ci moom nuyu ko ay mag yi yëpp lañu mën na cee bañ a fekk kon nee na mi ngi leen di sant di leen ñaanal lépp lu ngeen bëgg sëñ Touba defal leen ko Alaaji Omar Tall nag daf koy bàyyi ak sëñ Touba rek nee na sëñ Touba mi liggéeyal moo koy fay mu fay ko ci àdduna fay ko ci fa mu jëm mi ngi koy ñaanal bu baax a baax. sant nag ñi mbokkal ndey ñu Omar Cissé ak Dame Fall Modou Kane Fall mboolem na ku mbokkal baay tudde ko ko doom ba ñoom ñëpp ay jànq kon nag yàlla na yàlla fay nee na amul seen pay yàlla maam seen pay soxna Diagne mi nag nee na mi koy baral cantuk boppam boo xam ni daf koy liggéeyal nee te daf koy liggéeyal daf koy ñor nee na muy da soppe Cheikh Moustapha nee na bi sax sopp na ko tëdd ko daayira Amdi Moustapha waaye bu ne lu nekk na ko ci def di sol mbubbam sol dàllam fu mu war a dem dana fa dem liggéey Cheikh Moustapha rek yàlla ko yàlla fay yàlla ko yàlla fay ki njabootam ñoom ñëpp ñu fi ñu fi jógee yàlla nañ yokku yàlla nañ am xéewal yàlla nañ am jàmm ci barka Cheikh Moustapha waaw ah daayira Kalsaan soxna maam fàttali na leen sëñ Baara ñaanal sëñ Baara mu Cheikh Seye bi moo leen di ñaanal nangu leen ñaan. déglu leen ñaan gi doomi sëñ Seye booy ñaan de.